digal ak li mu ko tere kon nag yow Omar yaa ngi may niroog jëmm ju tedd jooju di Seydina Nuux ci faydam ju ëpp ji kon nag maa ngi lay yëgal ne yow Omar li nga wax moom la yàlla wax yàlla nee na naa takk xare ubbi ji mag daldi wut nag moom yonent bi sallallahu alayhi ay espion teg leen ci yoon yi ne leen na ngeen fukk lu yoon yi ku ngeen wóoluwul rek bu mu jàll foofu nag la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam digale saxaaba yi ne nanu takku saxaaba bu ne duufal nga sa naaru góor bu mu suur nga daas sa jaasi ba mu ñëw nga dugal ci sa mbar takku tabarkalla ba jëkk soldaar sipp taxaw di xaar ndigalu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yonente génn di xool ni saxaaba yi taxawee ak ni ñu takkoo ak ni ñu amee pas-pas mu war nag war boobu ñuy wax dul dul di wër nag nuyuwul kenn waaye comme nuyuwul joxul kenn loxo waaye comme romb rek ne la asalaamaaleykum kenn ku ne mu jàkkaarloog sa xar kanam xool la ci kaw ba ci suuf waaw wër soldaar sépp gis ne ñu takko fi nekk te ñooña àgg nañu ci junniy soldaar foofu nag la nu wax ni keroog yonent bi bég na mbégte goo xam ne keroog ko jàkkaarloo kanamam danga dugg aljana te kenn du la réglé foofu nag la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tabarakallahu daal di laaje saxaaba ya ne leen dama na mu jihaat lu ji seen xalaat ñu ni ko ñun ñu ngi lay sant di la gërëm jihaad gi ñuy def ñu ngi ciy sant yàlla di ko ci gërëm di la ci sant di la ci gërëm su ñu demee suñ bakkan des ca baax na suñu dellusee baax na kon daal mbir mi sa mbir la bu ñu diggalee ñu topp Pastef googu nga xam ni saxaaba yi am nañ ko ci namm ubbi ji màkka loolu taxoon na kenn ci saxaaba yu tedd ya koo xam ne fekke na badar ku ñuy wax xaatib euh, dafa bind benn lettre pour yëgal waa màkka ne yonent bi sallallahu alayhi wa takk na xare jëm si ci yéen kon nag na ngeen fagaru te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu rek la doon nëbb nëbbuloo na ko saydatuna Aïcha ñaar la ci jot a diisool mu di Abu Bakrin Siddiq ak Omar ibnu Alxataab jël na ay espion teg ci yoon yi pour ku ñu wóoluwul bañ a jàll ngir rek bañ xabaar bi seen ñaan na yàlla itam ne ko bu ñu sañoon dañuy bett gaañi waaye duñu xam ci ñun dara kon lu tax saxaabi bu tedd bi di xaatib xaatib ibnu abi baltaa al badri bind ab lettre pour yónnee ko waa Quraysh ngir xamal leen ni yonent bi mu ngi takk xare jëm si ci ñoom bu mu ko bindee ba noppi mu ngi ko jox benn jigéen jigéen jooja am nañu bind ne mu ngi tudd saarata wante lan la xatib def ca lettre ba def ci bind ne min xaatib ibni abi baltaa ila suhayl ibnu amr wa ikramatu ibnu abi jahl wa safaan ibnu umaya amma baad yaa maachara quraysh fa inna rasula allahi sallallahu alayhi wa sallam jaakum bi jayshin azim yasiru ka sayl fa wallahi law jaakum waxdahu la nasarahu llah wa anjada lahu wacdahu fanzuru li anfusikum wassalaam mu bind ne lettre bi mu ngi jóge ci xatib ibnu abi baltaa maa ngi koy bind nag ku ñuy wax suhayl ibnu amr yéeféer la ca màkk ak ku ñuy wax ikramatu abi jahl yéeféer ca màkk ak ku ñuy wax safaan ibnu umayya moom itam yéeféer ca màkk ñett ñi la bind lettre bi moom xatib ne leen wax quraysh maa leen di yëgal ni rasulullahi fas yéene na dëtmal màkk ànd ak armée bu rëy soldat su takku ngànnaay yu doy waat naa ci yàlla ni moom dong su jógoon wursi leen na ak yéen yàlla dana ko jàppale rawatina nag muy ñëw moom ànd ak soldat su bare nii ak ngànnaay yu bare nii kon nag fagaru leen ngeen xoolaat seen bopp loolu daal la xaatib bind bu mu ko bindee ba noppi mu daldi woo benn jigéen jigéen jooj ñuy wax saarata am na ñu wax sax ne jalaada la tudd ne ko dama la bëgg fay jox la xaalis bu bari nga yóbbul ma lettre bi joxal ma ko waa Quraysh mu ne ko soo ma ko yóbbulee waxuma la fay gi wante danaa ci teg beneen neexal kon moom xaatib amoon na yéene ci lettre bi yegg wante ba tey ñu ngi am jaaxle ci xaatib mi lu tax mu di jullit fekke badar te waa badar am ngëneel yu rëy ba noppi muy bind lettre bu toll nii di feeñal secret rasulullah jigéen jë daldi di nangu xaatib ne ko kon lettre bi nooy def ba du feeñ mu ne ko daf koy woddoo mu ne ko wóorul bu ñu la visité mu feeñ mu ne ko fas yu may war dama koy teg ci suufu teg gi kon laay jël def ci lettre bi mu ne ko ba tey wóorul ndax buñ la visité mu feeñ comme jigéen ñi dañu bari pexe mu ne ko kon dangay bàyyi comme dama bari kawar ma lettaale ko ci samay kawar ci sama kawar mu ne ko kon alhamdulilah am naa ci yaakaar ci ne kon du feeñ mu jël lettre bi daal di koy jox ndaw si ndaw si daal di départ dem mu dellu si na patt moom xaatib waxul kenn dara wante yàlla mi nga xam ni moo di àllaamul xuyub li fàddu lépp la xam waaw li xol yi di xalaat sax xam na ko moom yàlla moo yebal Seydina Jibril ne ko demal nga wax yonent bi ne ko secret am na ko kon na ma feeñal bu jógul secret dana feeñ te kon la mu bëggoon du am Seydina Jibril ne cëpp ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi wa ne ko sa borom mi nga lay nuyu nee am na kenn ci sa njaboot ku bind lettre jox ko jigéen pour mu yóbbu ko mag te lettre boobu la ca nekk moo di siiwal sa secret ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wooye imaam ali karamallahu wajhahu ak ku ñu wax Zubayr ibnu Awaam ne leen dabal leen ma ndaw suñuy wax saarata wala jalaada am na lettre buñ ko jox ngeen nangul ma lettre bi indil ma ko Seydina Ali karamallahu wajhahu ànd ak Zubayr ibn al-Awam ñu daldi di seen fas daldi di topp ndaw soosu wax nañu ni bi nga xamante ni yàlla dogal na ñu dab ndaw si ba ñu ko dabee euh, Zubayr ibnul Awaam visité na ko waaw coon na ko lislaam bëggee nag lislaam moom na mu bëggee ci nañu war a visité jigéen noonu rek la ko Zubayr ibnul Awaam defe seet nañu waruwaay ga laaj nanu ko mu ne daal moom kenn jox ko dara foofu nag la Ali ibn Abi Talib daal di giñe ne ko giñ na ci yàlla ne Seyduna Muhammad du fen mukk te moo ñu wax ne jox nañ la lettre pour nga yóbbul ko waa Quraysh kon nag fii balaa nga fiy jóge danga génne lettre bi ba mu demee nag ba jaaxle ca la leen wax na leen kon nag da ngeen di dummóoyu bañ ma xool ma teggi sama fulaar ci sama ko bopp daal di dindi lettre bi ndax dama ko lëttoo dama ko lëttuwaale ci la Sidna Ali ak Zubayr ibnul Awaam daal di dummoyu moom ndaw si mu daal firi boppam daldi dindi lettre ba daldi leen koy jox ah Seydina karamallahu wajhahu daal di jël lettre ba liir ko gis la ca nekk yépp xam ne lettre bi moom la yonent bi waxoon ne nanu ko jëli ca ndaw soosu ah, ñu daal di dellu si waat nag Makka daal di jël lettre ba jox ko Seyduna Muhammad yonent bi sallallahu alayhi wa daal di dajale nit ñi ba mu liiree lettre ba nag mer na waaw mer na lool sax mer mu jéggi dayu julli jot mu ne Bilal noddal Bilal noddu nit ñi daje mu jiite nit ñi ba mu sëlmalee nag ci la jóg daldi wax jullit ñi ne leen ayyuhal muslimuuna alxaadirun ayukum kataba hadihi risala ila ahli makka eey yéen jullit ñi fi teew ana ci yéen moo bind lettre bi doon ko yónnee waa mag doon leen xamal sama mbir ak sama mbiru borom te amul sama ndigal amul sama ndigalu borom ki bind lettre bi na jóg taxaw ne maa ko bind su ko deful jibril a ngi nii taxaw dana ko yëkkati ci nii wala ci naa mbooloo mi ne tekk kenn yëngatuwul wante ka def def jëf ja moom xam na te moo di xaatib ibnu abi baltaa al badri yonent bi baamtuwaat wax bi ne ayuha almuslimuun alxaadiruun ayukum kataba hadihi risala ila ahli makka ey yéen jullit ñi fi teew ana kan ci yéen moo bind lettre bi yónnee ko waa makka di leen xamal sama mbir ak sama mbiru borom te amul sama ndigal amul sama ndigalu borom ki ko def na jóg taxaw ne maa ko def su jógul taxaw jibril la ngi nii taxaw dana ko yëkkati ci nii walla ca naa mbooloo mi ne teg kenn waxul dara yonent bi baamtuwaat wax bi ñetteelu yoon ba nag ci la xaatib ibnu abi baltaata daal di jóg daldi taxaw ne yonent bi ay la yéwén man mi maa ko bind man nag gëm naa yàlla dëggal naa sak yonent yonent bi ne ko lu tax ak ban sabab moo tax nga feeñal sama mbir ak mbiru yàlla ci samay noon ak sama nooni boroom waxtu wi nga xam ni am naa yitte lool ci nëbb xabaar bi nga xam ni yàlla ma ko nëbbuloo xaatib ibnu abi baltaxa ne jaaxle rek a tax ma def ko ndax fii ma nekk ci ma dinatul mën madinatul munawwara dox doxandeem laa fi awma fi mbokk lislaam rek a ma booleek ñoom waa màkk ñooy samay mbokk samay dooma nga fa sama lépp a nga ma gis itam ni nga takkoo ak ni nga mere ma gis soldaar si ak seen taxawaay yi ak ngànnaay yi ma gis itam nañu ñu takkoo ak ni ñu mere ma amuk jaaxle ci ni soo duggee màkk danga leen faagaagal te bu boobaa sama njaboot duñu mucc loolu tax rekk mu bind lettre bi ngir am ñeewante ci njaboot wante du dara yonent bi ne ko gannaaw ba nga feeñalee secret yàlla bi mën na buloo feeñal sama secret bis ni ki tey génn naa ci yow te maa ngi lay yëgal ne yàlla génn na ci yow saxaaba yépp nag daldi di jàmm xaatab xaatib ibnu abi baltaa faaletuñ ko ci dara ñépp di ko daw mu génn nag jaaxle lool waaw soo ko gisee dangay foog ne tabaarakallaahu xel mi dafa rëcc ndax jaaxle ndax ni mu bëggee woon yonent bi wante seytaane dugal na ko taal ci mbir moo xam ni xamul nu muy def ba génn ci mu daldi dem nag këram daldi wut buum daal koy takk ci garab daldi jël buum gi itam takk ko ca baat ba daldi woo soxnaam yi ba ñu ñëw mu ne leen eh, ku mën a muñ nga toog ku mënta muñ yewi naa la ndax àtte yàlla dal na ci sama kaw yonent bi génn na ci man sama boroom itam génn na ci man fii la fas yéene toog nag di tuub di toroxlul sama borom ba ba mu may jéggal walla ma dee dugg safara wante daal dund bu neex fas yéeneetuma koo am feeg yàlla ngi génn ci man ak yonentam ba mu nekk ca lool ci torox lu googu la nekk diir bu yàgg waaw nekk ca diir bu yàgg ba Seydina Jibril bis rekk mu daldi wàcc ba mu wàccee itam ne yonent bi sa borom nee na jéggal na xaatib ibnu abi baltaa al badri ci bàkkaar bi nga xam ne def na ko te moo di feeñal secreem ak secret lislaam daal di jàng aaya ba laa taqnatu min rahmatillah inna allaha yaxfiru dunuba jamia innahu huwa alxafuru rahim sidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam daal di yebal nag ali ibnu abi talib ne ko demal ci xaatib nga wax ko ne ko yàlla jéggal na ko ndax dafa bokk ci ëhlu badar te képp ku bokk ci ëhlu badar yàlla xoolatul sa lu ñaaw ndax keroog ca xare badar la yàlla sëpp jullit ñi jullit ñi fekke badar ne gannaaw bis ni ki tey gisatuma seen dara lu ñaaw te moom xaatib mu nga bokkoon ca ëhlu badar yàlla nag daal di jox conseil jullit ñi jox leen ndigal ci ni ab jullit jullit la wara jël mu di xaritam jullit la wala sopp jullit la war a am ñeewante ci moom wante nekk jullit ba pare te ab yéeféer rek ngay def xarit ab yéeféer rek ngay sopp ab yéeféer rek ngay àndal musiba bu nit dugg boobu ci gën a rëy moo tax xaatib mi li muy bokk ci ahlu badar yëpp naroon naa dugg ci musiba yërmande yàlla rek moo ko rawale lu tax ndax cofeel gu mu amoon ci tabarakallahu ñoo xam ne ay noonu yàlla leen moo tax yow jullit bi bul ne mukk chrétien bi moo la gënal julit bi wala juif bee la gënal julit bi wala athée bee la gënal julit bi ak lu jikko jullit bi ñaaw ñaaw ñaaw ñaaw ñaaw ab ab athée mënu koo gën ab yahud mënu koo gën ab nasaraan mënu koo gën moo tax borom bi subhanahu wa wax ni yaa ayuha alladina amanu laata tattaxidu aduwi wa aduwakum awliyaa ey yéen gaa ñi nga xam ne yéen a ngi bokk ci iratul imaan bu leen jàppeeti samay noon ak seeni noon bu leen leen jàppi mukk xarit ba tax ngeen di weccanteeg ñoom cofeel mu mel nii tabarakallahu mbokk yi ñu ngi def siñ ne euh, li ñu amoon ci waxtu jeex na ñu fas yéene tey waxtaan ak yéen continuer fatxu Màkka bi nga xam ne tabaarakallaahu doroon nanu ko mu mel nii gannaaw ba ñu sante yàlla julli ci sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa julli ci ay ñoñam ak i saxaabaam ci waxtaan wi ñu génn gisoon nan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu mag mu di fatxu mag kenn lu dul sayyidatuna Aïcha ak baayam sayyiduna Abu Bakrin ak Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma mbir mu rëy amoon na ci saxaabi yu bu mag boo xam ne secret bi yonent bi nëbboon seytaani mënoon na ko ba mu amoon yéene feeñal ko ci waxtaan wi ñu génn gis ngeen lettre bi mu bindoon jox ko jigéen jooju pour mu yóbbu ko Makka yàlla ci mbaaxam ak ci namm ci la yebale Seydina Jibril ne ko demal ci yonent bi nga wax ko ne ko am na ci njabootam ku def njuumte lu rëy ndax bind na lettre pour siiwal xabaaram mag ci la yebal Ali Abi Talib ak Zubayr al-Awam ci ñu dab ndaw soosu ca la ñu nangu lettre ba gis ngeen itam fa waaj a mujj moo di ñàkk naagu ci yërmande yàlla jël na buum takk ci baatam fas yéene toroxlul yàlla ba yàlla jéggal ko bàkkaar bi mu def rëy na waaye xam na ne bàkkaaram boobu li muy rëy rëy yépp xaj na ci yërmande yàlla muy jéggalu boroomam di jéggalu boroomam ba yàlla xëy jéggal ko mu mel nii loolu lu rëy la ci jullit tooñ yàlla am yaakaar ci ne dana la jéggal nga jéggalu ko mu jéggal la loolu rëy na ci jullit kon képp ku di ab jullit lu sa bàkkaar réy rëy bu dul bokkaale rek yàlla mën na la ko jéggal moo tax yàlla jéggal xaatib mu mel ni yonent bi sallallahu génn na pour nam ma tukki tukki xare tukki itam ubbi dëkk bu rëy boobu nga xam ne moo di makkatal mukarrama mu bàyyi ca mën madinatul munawwara silmaxa gu baax googu ñuy wax euh, mu bàyyi ca mën madinatul munawwara ibnu ummi maktuum mu di silmaxa gu baax googu nga xam ni moom la ko yàlla yedde woon ca abasa la mu mel ni am na ñeneen ñu wax ne aba ruhm kulthum ibnu xusayn moom la fa bàyyi waaye am na ñu wax ne itam ibnu ummi maktum la fa bàyyi ñaari wax yooyu yépp am na ci yonent bi sallallahu ci weeru koor gannaaw ba weer wa amee fukki fan ci la génn di tombeek 630 ci juddug Seydina Isa alayhi salaam nee neen bis boobu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko woor ba mu yeggee ci ci Kadiit ca diggante Usfaan ci la doge moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam saxaaba yépp daal di dog mu ngi àndoon ak lu tolloo fukki junniy soldaar ci ay saxaaba yu ko gëm moom pour nam ubbi ji màkk yonent bi sallallahu alayhi yebale woon na ci arab yi ko wër gëm ko pour ñu woore si madinatul munawwara ànd ak moom pour ñu ubbi ji màkk ñi ko gëmoon ñépp teew nanu ànd ak moom ci tukki boobu wax ne ni ñi mu àndaloon ci ay soxnaam moo di ummu salamata ak maymuna radiallahu anhuma ñaari soxnaam yooyu ñoo àndoon ak moom ci fatxu màkk yonent bi wax ne na gannaaw tàkkusaan la génn yonent bi sallallahu alayhi wa tukki boobu nga xam ni tabaarakallahu sumb na ko mu di tukki bu rëy wax ne ni la mu ci àndaloon na kis ci ay saxaaba fukki junni lañu waaye ba mu ñëwee ba Makka am na ñaari junni yoo xam ne tegu neen ci mu di fukki junni ak ñaar bi yonent bi sallallahu alayhi wa ba jege mag ci la digal saxaaba yi ne leen nanu taal taal yu bari ñoom itam ñu taal taal yu bari pour yonent bi nam ma won waa Makka kàttanam ak doole ak mbooloo mi ko yàlla jox loolu itam waa Makka di ca tiite di ca ragale ndax bu ñu gisee taal ya bari danañu xam ne yonent bi dikk na ak soldaar soo xam ne kenn mënu leen a dékku loolu dana damm seen ak ñaw ka loolu tax waa Màkka ba ñu déggee yënguwa ci xuru Màkka ñoom ci seen biir laaj waxtaan nañu kenn ku ne di laaj sa moroom ndax ba ñu gisee safara sa dégg yëngu ba dañu daldi tiit nag ci liy yëngu ci xuru màkk wi te xamuñu lan la ndax yonent bi waxu leen dara te fàtt na yoon yépp benn xabaar sennul muy raam ndànk di raam ndànk ba jege ci màkk ba tiim leen ba ñuy dégg yëngoom di gis safaraam looloo tax ñoom ñu waxtaan ci seen biir daa jël daal di laajante ñii ne waaw yëngu boobu ñuy dégg ci xuru màkka wi lan la ñii ne ah yëngu boobu de xaw naa niru buuru Iskandar ndax kàttan ga ko yàlla joxoon ba mu wër mën a wër àdduna bi ñii ne déedéet doole jooju kay doole Kisra la war a tollool anu Sherwaan ñu ne déedéet yëngu googu kay xaw xiis la war a tollool mu di buuru Misra wante kuñ ci tudd ci buur yooyu rekk ñu ne déedéet kàttan gi ñu dégg ci xuru Màkka ëpp na kàttanu Iskandar ëpp na kàttanu Kisra anu Sharwan ëpp na kàttanu Muqawqis waa Màkka nag daldi di jaaxle ne kon li fi sës moo di ne nanu yebal ay espion yu jéem a xam lan moo xew waa Màkka nag ne comme Abu Sufyaan yaay buuru Màkka yaay kilifa gi yaa war a dem pour xam lan moo xew Abu Sufyaan daal di jóg am ñu mu àndal bi nga xamante ni Abu Sufyaan dugg na xuru Màkka ca daje dajeeg abbas ubnu abdul muttalib abbas daa di koy wax ne ko rasulullah la àndal ak lu tolloog fukki junni soldaar dañoo ñëw pour nam ubbi si mag maa ngi lay yëgal nag ni saa bu ngeen jógee na ma xeex danañu leen rey ba ngeen jeex kon li fi sës moo di ngeen négocier te nga tuub sax moo gën mu ne ko danaa fexe garanti ba yóbbu la ci kanamu yonent bi kenn du la laal nga tuub ci wetam Abu Sufyaan ne xoolu di xoole ndax moom ngir mi dépassé na ko Seydina Abbas ànd ak moom ba indi ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam